alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala hadi amin sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa wa man tabiahu dala ila yawmi din ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam gërëm ku tedd ki sëñ Abdou Ahad ñi ngi am mbégte ngir dalal leen ci wàccaayu bis bu mag bi nga xam ne suñu jàmbar Cheikh Abdou Ahad Eh, moo ko moo ci gane woon àddina ñuy siyaar eh, tey ndokkeel tey jéggulu di ci jiital nag eh, Serigne Touba Cheikh Modou Mountakha di ñaan yàlla suñu borom guddal fanam te may ko wér su guddee fan te may ko wér mu yàgg fi liñ bëgg yëpp dinañ ko am ndax doomi Serigne Touba yi ku ne dafa am lu ñu la jagleel moom dafa yor xilaaf ak Cheikh Mouhamadul Bachir te Cheikh Mouhamadul Bachir kenn ku ne xam na ni mbiram yëpp mbégte la. kon ak xilaafaam bigte rek lay doon ñeel ñëpp nag kon ñu ñaanal ko yàlla mu guddal fanam te may ko wér eh, di nuyu euh, Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad eh, di ko ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam te may ko wér moom itam. ñu fàttali ko Cheikh Abdoul Ahad euh, ki mu doon nga xam ni mooy yaakaari Cheikhul Khadim bi mooy jàmbaari Cheikhul Khad Cheikhul Khadim lislaam ji nga xam ni li Serigne Touba yaakaaroon ci moom lépp feeñ na. ci melokaanam ci ay jëfam ci ay waxam ci ay ci ci fullaam ci fitam ci ak njàmbaaram nga xam ni Serigne Touba lépp lu mu nisaroon ci dëkkam bu sell bii nga xam ni seex Cheikh Mouhamadou Moustapha ak seex Modou Fadé mi ko fi jiitu am na yuñ ca def lépp li nga xam ni sëriñ bi nisaroon na ko lenn lu nekk tàmbali na ko yi mu àggale ko yëpp ak njàmbaaram dafa feeñ ci moom nga xam ni kon dañuy wax ni Cheikh Abdoul Ahad euh, Euh, su ma ko doon jàngale dama naan yoonu murit Cheikh Abdoul mooy feuille de route yoonu murit maanaam ni ñuy nose ni ñu yore mbooloo ni ñuy sàmme ndono te ndono li mooy alhuda ak alxaq mooy dëgg akum jub rek euh, suñu xoolee Cheikh Abdoul aw yorinam mi mu yore woon mbooloo mi yore woon ko ndonol Cheikhul Xadim li yore ko dëkkub Serigne Touba bi doon ko sàmmel lislaam ji loolu mooy feuille bi nga xam ni Serigne Touba loolu la rëddoon mu jaar ci nga xam ni képp koo xam ni mbooloo foo man mën la ci àddina te yor mbooloo mbaa nga jiite ko mbaa nga jiitam sax am réew soo waree Cheikh Abdoul Ahad di nga ci génn kon Cheikh Abdoul man su ma ko naan aw doxinam euh, mooy doxaliinu mooy feuille yoon feuille de yoon yoonu murit yàlla nañ ko yàlla fayal euh, mu nekk jëmm joo xam ni euh, wax dëgg yàlla ku ñu da ngay wax ci moom mën naa yomb ci yow ndax yàlla dogal na man bi ma nekkee xale dama daan dem ci moom di toog. Euh, di di mu xàmmee ma euh, ba bi ma waree jàngi 86 moom moo ma wax ni bu ma jàngi moom moom xamul lu mu wax lu ci jublu waaye ma ko digal di ma bu ma dem am yu ma ci wax yoo xam ne mun ma ko wax ci ab télé. Euh, bitim réew dama waroon jàngi booba benn ay bourse tollu juróom-benn moo fi amoon senegal bi ma ñëwee ba waxtaan ci ak moom maa fekk na suñu am satu Thierno ñaan yaakaar naa fekkee na ko bi ma ñëwee ni ko sëriñ bi de bourse yi. Eh, ñu ngi koy joxe ci vacances yi mu ne man daal boobu man daal Ibader laa xam te nekku fi boobu Ibader mi ngi UNESCO di am lu mu fa doon liggéeyal eh, réewu Sénégal yaakaar naa mu daal Ibader laa xam te nekku fi eh, am lu ma ci wax ci laa tege lépp ci suuf dégg ndigalam loolu waaye rëccu ma ci dara maa ngi koy sant di ñaan yàlla suñu borom yor yor li mu liggéey lislaam liggéeyal ko yoonu mu muy suñu borom liggéey ko Sénégal yàlla fay ko ko bi barakati rasulillahi alayhi salatu wasalaam digganteem ak Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Xaadimu Rasul sëñ Baara ci boppam nettali na ko bëri na loo xam itam dañ koo xamee ci sëñ Baara waaye ci Seex lañ ko déggee euh, mu ko doon nettali ci ay jalooreem ci ay ak yaatoom ci ay doxalinam diggante bi nga xam ne amoon na ko ak moom lu ci war Seex Abdou Ahad nettali na ko ba génne benn photo boo xam ne sax Ndakaar lañ ko defe woon ñoom ñaar euh, ñu àndoon ko euh, ndax sëñ Baara dafa wax ni dafa dem njaareem doon siyaare ku baax gi bi mu koy siyaari fekk bis boobu ci lañ doon jox Cheikh Abdoul Ahad ibnu Xaadimu Rasul aw tur sëñ bi wax ca lam ca waxoon woote ñam woote woon ñëpp mag ña fa nekkoon ñoom suñu am satu di leen dénk ñu dem joxe ko aw tur nee nag na ko ñëpp yaakaar na ñëpp ñaanal nee na ko ñëpp ñaanal ndax dama ci am yaakaar xam nañu suñu boroom lu tas yaakaar yi kenn waaye rawatina yaakaar yi Cheikhul Khadim ko na ko na ñëpp ñaanal am lu mu ca teg sax ni bari waa na ku ko mag mu gën la loolu kàddu googu dégg naa ko ci eh, sëñ Baara nag mu fekk ko fa nee na bi ñu ànd ak mbooloo mi dem tuuti sëñ Tuubaa fekk leen fa eh, bi bi ñu ko joxee tur wi moom sëñ Baara ci la dellu siwaat bi mu ñibbisee fekk gan ci këram mu sëñ euh, soxna Xujja Faal nga xam ni moo yaay sëñ Abdou Ahad eh, mu sëñ Baara bi mu ñibbisee rek la fa fekk gan googu moom itam la sëñ Tuubaa waxoon mu tuddee ko Cheikh Abdou Ahad moomu nga xam ne li ñu magantee daanaka bariwul trop loolu li muy firndeel mooy dëggal li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa wax ak barkeel ko mu jëgal liggéeyal sëñ Tuubaa moom Cheikh Mawlana Baara ci Cheikh Abdoul Ahad moomu radiyallaahu taala anhum euh, Cheikh Abdoul Ahad jàpp naa ni tur mooy ki ko jëkk dudd ci àddina waaye Cheikh Abdoul Ahad ibnu Cheikh Mawlana Baara moom la sëñ Abdoul Ahad jëkk am ci aw turandoo ci kaw suuf ci àddina loolu nag am lu muy firndeel ci farlu Cheikh Mawlana Baara ak dégg gum dégg waxe Cheikh Abdoul Cheikhul Khadim ak cofeel gu mu am ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon koo xam ni dañu laa tudd nga ñëw sa kër toog fab diir am gan nga tudd ko kooku li nga ko màggee bari na daanaka mën nga wax ni mat na ñaar fukki fan ñaar fukki at ak ñaar ak yu mel noonu euh, wala waaw man ak ñaar fukki ak ñett sax mat na ko euh, diggante boobu nag euh, sëñ Baara jàpp ko ci diggante Cheikh Abdoul Ahad li ñuy sore sore ci ay at sëñ Abdoul Ahad fépp fu mas a nekk di jàng sëñ Baara dina fa dem. di ko seeti eh, bi nga xamee dem na itam ba am njàngam àgg ba mu war mën a jaxasoog nit ñi moom Cheikh Abdou Ahad Sëriñ Baara wax na ni fépp foo xam ne dafa daan dem ñaare dina ànd ak Sëriñ Abdou Ahad ànd ak moom ci ngan yooyu di ànd ak moom di wër taalibe yi te lépp lu muy defal boppam moom la daan defal Cheikh Abdou Ahad Cheikh Abdou Ahad nettali na ni Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ibnu Xaadimu Rasul moom a jëkk jox aw fas moom ma jëkk xottil am mbubb te loolu da daan jëflanteeg moom ci lépp kon diggante la boo xam ni diggante la boo xam ni ñoom ñaar rek ñoo xam li doxoon ci seen diggante waaye suñ baara moom fonkoon na ko teg ko foo xam ni e, fu suñ ab laat nekk mës na ko dafa daan dem di ko seeti loolu mooy relation bi rek rafet bi nga xam ni moo amoon ci seen diggante suñ ab itam noonu la fonke woon mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gi suñ Mour Bara dafa a jóge waaye suñu Abdoul ba ci seex bi ci ñi ci mujj ñëpp kenn ku nekk fa nga nekkoon sëñ Abdou Lahad daan ñëw di la saytu di xool fa nga nekk di la jàppale ca lam man ci sa bi ak baatin bi ba sëñ Basiru Xujja bi nga xam ni mooy suñu waajur nekk Daaru Salaam Kajoor nga xam ni soriwutoon ak Touba Kàbbu Gay euh, sëñ Abdou Lahad dafa daan ñëw di jokkoo ak moom di ko taxawu di ko dëgëral foofu nga xam ni fa la ko sëñ Basiru dë euh, fa la ko sëñ Basiru euh, dëkkaloon sëñ Abdou Lahad mii nga xam dañ ko tuddee itam moom itam cofeel gi sëñ Abdou Lahad amoon ci moom mën naa ni doomi boppam mi am sax amu ko ci ndax da daan wax naan moom laa jëkk am ci aw fonk ko téye ko jàpp ko di ko saytu ci lépp noonu itam la doon defal mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Bara gi ni mu ko daan defal ci mboolem ëtti lislaam yi di ko def ci ëtti mbooleem waa kër Cheikhul Khadim gi radiallahu taala anhum ajmain li ma wax rek dama ko tënk ci yoonu murit waaye mën naa wax ni lislaam sëñ Abdou Lahad feuille de route yoonu lislaam la nga xam ni Eh, li suñu borom wax ci alquraanul karim naan waatasimu bi xablillahi jame wala tafarraqu cheikhul xadim radiallahu taala anhu eh, jëmmal ko ci masaalikul naan ci ñi nga xam ne ay dañuy yor ay ngir yu jëm ci suñu borom muy ay ay tarixa trox loolu sëñ Tuubaa wax ni bépp wér boo xam ni jàpp nga ko ci eh, lépp daf lay jëme ci suñu borom kon yépp a baax ndax benn bu ci nekk Serigne Touba barkeeloo na ko euh, kon loolu day firndeel ni euh, sëriñ Touba am na lu mu doon dox am na lu mu bëggoon nit ñi jàppee ko mooy lépp nekk benn te benn la ixtilaaf yi ci am rek yooyu bañatee am ndax sëriñ bi am na ci ñoo xam ni ay waa këram lañu mu jox leen wirdu xaadir am na ñoo xam ne wirdu tijaan la leen joxoon am na yoo xam ne wirdu saasari la leen joxoon ñooñu xam nañ leen bu baax loolu day firndeel Sëriñ Tuubaa la mu waxoon ci Masaalikul Jinaan loola rek la la la firndeel ci jëf Cheikh Abdoul Ahad nag euh, bu ngeen jëlee thème maanaam euh, euh, tudde ko ak bennoo ak ñàkk a taqalikoo ak ñàkk a déggoo ci turuux yi nga xam ni wala jullit yi wala seen nit ñi nga xam ñi ngi ci àddina loolu suñu Abdoul Ahad firndeel na ko ci léppam ci jëfam ci ay waxam ci ay mbindam ci lépp nga xam ni fii dégg nañ mu wax fi ni bëggatumaa dégg benn murit buy xas tijaan wala benn tijaan buy xas murit ndax seen diggante mi ngi mel ni ñu bokk ndey ak baay kii xees kii ñuul kii xeereer koo ci tamitam tam nga ka ca des kon tamante xajul ci suñ diggante loola Cheikh Abdoul Ahad daf koo daf ko jëmmal ci lépp euh, boo seetloo digganteem ak euh, euh, suñ mbokki ñeseen yi relation bi ñu amul daan ñëw ci Cheikh Abdoul Ahad nga xam ni dañ ko jàppe woon seen magum seen magum daara nga xool euh, Abdou maam Abdou Aziz Si Dabaax nga xool sëñ Cene ba nga xool 82 xuma 84 Cheikh Ahmad Tidiane euh, Al Maktoum bi mu ñëwee fii si gan Cheikh Abdou Ahad yooyu yëpp day firndeel Cheikh Abdou Ahad nangu gum nangu na yilif ñi nga xam ne moo leen magan ci lislaam bi euh, yilif nag nit ki du daay da nga da nga naan du nekkul ne da ko naan tey ma yilif la da ko yilife ci sa jikko yilif ko ci sa jëflin la ñu waxoon Omar ibnu Abdul Aziz ni ko moom nga nit ñi ci sa maandu ci sa mbaax ci sa tabe ci sa aar ci nga yilife ñëpp Cheikh Abdoul Ahad itam loolu la yilife woon ñëpp kon su ngeen fobee thème bi tudde ko Cheikh Abdoul Ahad am naa yaakaar ni delloo ngeen mbir mi boroom ndax Cheikh Abdoul Ahad léppam am njàngale la muy wax ji muy jëf ji ci ci lislaam bi ci sénégalais yi ci kilifay diine yi maa ngi fàttaliku uh, benn kilifa bu mag am lu ma nettali bi nga xam ne président Léopold Sédar Senghor nekk na fi ba war a bàyyi réew mi eh, léegi mu xeetal président Abdou Diouf boobu premier ministre la mu ñëw suñu Abdou Lahad eh, ngir boole ko ak moom dafa jëkk yónnee ni ko dama lay seet si mu ne ki may seet si premier ministre moo may seet si am ab taalibe moom mooy seet mooy seeti ab sëriñam wala doom mooy seet si baayam président Abdou doom mooy seet si baayam taalibe mooy seet si ab sëriñam mu ni ko ab sëriñ day diggante taalibe ku sëriñ day mooy lu mu la war a digal da la koy digal lu mu la war a tere da koy tere da koy tere bu la digalee nga def ko nag sa njariñ lay doon lépp lu mu la tere nga nga def ko itam sa wàññi rek la fay lay doon loolu mooy diggante sëriñ bi ak taalib te noonu laa mën a ànd yow ci loolu euh, ci tënk mun ko diggante baay bi ak doom mi ngi mel ni xale boo xam ne day jàng raam raam jëm ci ab fourne mu xam ne bu ca àggee dana lakk su ko baay bi ayoo su bañee bu ca tegee loxoom day lakk euh, moom it mu nangul ko loolu moom président Abdou Diouf àndeek ak Cheikh Abdoul ci loolu kon jëflante boobu nga xam ni moom la daan jëflante ak nit ci àddina yi noonu daan jëflante ak nit ñi bokkal diine ba fam ñëpp nos lañ ci benn buum kon su ngeen fabee thème bi tudd ko Cheikh Abdoul Ahad euh, ci ak bennoo euh, ci wàllu turux yi loolu am solo la danga koy fekk Cheikh Abdoul Ahad ci jëfam ci jikkoom ci waxinam ci melokaanam ci léppam nga xam ni sax am na benn bis euh, président Abdou Diouf laaj na ko ni ko dama bëgg nga wax ma naka la ñuy yore am réew mun ko mbooloo de moom ni ñu ko yore ni ñu ko yore xam naa ko jox ko ci ay tegtal voilà yooyu yëpp mu ne ko nag ñi nga yore mbooloo rek noonu la ñuy yore am réew kon sëñ Abdou Lahad nit la koo xam ni wax dëgg yàlla léppam am njàngale la ci képp koo xam ni sa xol leer na. sëñ Abdou Lahad euh, radiyallahu taala li ma marqué ci moom dafa bari euh, ndeysaan am na ñoo xam dañ ma xam dañ laaj ne ma sëñ moo la yar loolu mooy marqué gi ma marqué ak cofeel gu ma am ci moom euh, ak gimmi goo xam ni bi may nekk bi may bi gimmi ci xilaafam laa tombeel sëñ Abdou Lahad Euh, boo xoolee personnalité am jëmmam dafa mat li mu doon dafa mat li mu doon ci jëmm ji daf koo mat ci col gi daf koo mat ci toogin wi daf ko mat ci waxin wi mu nekk jëmm joo xam ni man li may defal listixaar ci doomu aadama yi dëggu ci ku ma dégg nga wax ni danga bëgg si am laat wala ma gis ngay wax ay waxinam ci lay jàpp yow mi nit ku jub nga nit ku dëggu nga Sëñ Abdou Ahad li ñu mark ci jamonoom mooy sëñ Fallou sëñ Fallou bi fi nekkee maam Fallou lañ daan wax nga xam ni lu waay def ci àddina lu mu mën di doon boo ñëwee sëñ Fallou dina nekk sa maam ba aar sa ba dox sa digganteeg loolee waaye nag dina la yedd dina wéete yow yedd la ne nag lii warutoo koo def waroo koo def ab jullit warut a def lii nit ku baax warut def lii waaye loo mën def ci àddina boo ñëwee sëñ fàllu day ànd ak yow ca loolee ba nga ba nga génn ca mu yedd la teg la ci aw yoon. waaye bu ñu ma sax waaye waaye maama ngi nii waaye bàyyi ngi ñëw su bàyyi ñëwee ñëpp na nuru bàyyi ngi ñëw su bàyyi ñëwee rek ñëpp dañ danañ jub Cheikh Abdoul Ahad boo xoolee dëkk sëriñ Touba bi nga xam ne mooy Touba nga xam ne dafa amoon lu tax sëriñ bi sanc ko sos ko bu bàyyee Mbàkke Kajoor bàyyi Mbàkke Bawol bàyyi Daaru Salaam ba ñëw fii dafa am lu taxoon mu sanc ko loola mooy jàngale ak yar ak former nit ki ba mu mën a amal boppam njariñ amal ko njabootam amal ko am réewam euh, am na Cheikh Sidi Maxtaar mas na maa wax ni ma dëkk bi sëriñ Touba sax mos sa bëgg ko fi def commerce ndax bëggoon ñu war maal ko ci lépp jamono nag mooy dox aw nit fu ñu dëkk danañ dem ba nga xam ni euh, dafa am yu fu mënta ñàkk li taxoon sëñ bëggoon ko nag mooy euh, bañoon ko dara lu may jàngale ak yar ak tarbiya nga xam sëñ Abdou Lahad bi bi ñëw kenn ku nekk boo xàmmi ko ñun suñu masaa ñëw ci penc mi daanaka kenn du ko xàmmee ak yeneen dëkk yi ak màggal Touba ak dul màggal soo demee ci boutique yi lépp lu ñuy jaay ci di ko tere ci yeneen dëkk yi da ngay ko fekk ñu koy jaay ci boutique yi boo duggee marché marché Ocass noonu loolu suñu Abdou Lahad jël ay matukaayam daal di ne dëkku Serigne Touba bi lim fi bëggoon te taxoon mu sanc ko ak lim fiy bañ ba taxoon mu daw ñëw fii sama bakkan bi laa ci teg. mu teg ci bakkanam boobu ba raxas dëkk bi ba mu set wecc ci yooyu nga xam ni bi ñu waxee eh, bi mu fi indi brigade bi booba sax am na ci ñoo xam ni seen gis-gis soriwul woon waaye dafa am lu tax mu def ko mooy kaaraange la ci jublu woon bi mu fi indi dawkat yooyu ngir ñu ñëw am yu ñuy seet am na ñoo xam bi ñu ko bi ñu bi ñu ko waxee si Abdou Lahad day dawkat yooyu dawkat yooyu dafa am ñu fi nekk yor jikkoy dawkat yooyu ñooñu rek la ñuy seet Euh, loolu nekk loo xam ni wax dëgg yàlla euh, liggéey na fi liggéey boo xam ni lu ma marqué la Sëñ Abdou Lahad ci ci digganteem ak doomu aadama yi jubbanti gum leen jubbanti ak bañcee maslaa nga xam ni dëgg koo mën ni doon ci àddina ak noo mën di toll saye boo ngay mbooloo saye boo ngay kilifa saye boo ngay maslaa ak moom guddeeg ba ci su dëgg ñëwee mu ànd ak dëgg bàyyi la foofu nga toog te nangu cee weet moo tax saa soo ko masaa dégg muy waxtaan di nga dégg mu tudd Seydina karramallaahu wajhahu euh, alfaaruux Seydina Omar alfaaruux te la ko ca neex mooy dëggu gi mu dëggu woon ba saxaaba yi ànd ak yonent ci benn gis-gis Omar bañ loolee ba mu wàcc wax fii ni alxaqu maa Omarin la ko waral mooy dëgg ga dëgg googu nag suñu Abdou Lahad moom la doon dund moo nekkoon jikkoom moo nekkee aw doxinam moo nekkee aw melokaanam moo nekkee léppam nga xam ni képp ku am ay caaxaan di ko jëmee feneen ba mu des Sëñ Abdou euh, ñàkk caaxaan googu nekk na lu ma marqué ci moom eh, maanaam maanaam discours am ni mu daan waxee eh, maanaam pédagogie bi ci nekk ak ni mu daan gàtte ak ni mu daan jubee eh, ak ni ni koy gaaw a xamee mooy benn pédagogue bu mag la moom Cheikh Abdou Lahad dafa mën a jàngale loolu itam lu ma marqué ci moom bëri na lu ma jànge ci moom ci waxin loo xam ni ci dama koy jéem a xalaat ci muy waxee di ko roy di ko jàng ndax day ab jàngalekat la loolu itam marqué na ma lool ci moom dëkk bii di Touba itam yii mu fu def nga xam ni boo xoolee rokaat bi boo xam naa ñëpp wax nañ ko sax diggante Mbàkke ak Touba nga xam ne maa ngi doon waxtaan ak ndeysaan euh, le maire de Dakar Mamadou Diop yàlla ko yàlla yërëm booba ministre de am na ministre bu mu nekkoon de la santé wala yu mel noonu moo ma doon nettali bi Sëñ Abdoulaye bi mu ko bëggee ak ni mu ko sàkkoo woon ci président Senghor ak ni ñu ko doon defee nga xam ni Sëñ Abdoulaye gis-gisam dafa sori lool dafa sori lool lool lool lool. Euh, kooku nekk royukaay boo xam ne borom basiira la woon euh, ci lépp nga xam ne boo doon jël daaray kaamil boo doon jël université bi boo doon jël résidence Cheikhul Khadim bi boo doon jël forage yi mu fi def nga jël corniche bi jël rocade bi loolu moo gën a néew ci li mu liggéey liggéey bi ci ëpp solo mooy defar tabax doomu aadama te ñëpp la dëgg fexe ba ñu dëggu ñëpp la fexe ba ñu jub xëy na ñëpp mun ñoo jub waaye li mu bëggoon ci dëkk bi ku fiy ñëw di si mbaa nga dëkk fii ci jamono sëñ Abdou fexe woon na ba li sëñ Tuubaa bëggoon ci dëkk bi nga def ko mooy jub ak dëggu ndax xam nga ni saa soo defee loo wërta def wala nga wax loo wërta wax am na loo ciy séentu nga xam ne musta maye dara ci yoonu murit même su kenn defee benn déclaration boo xam dafa concerné yoonu murit day daal di laaj rajo bi wax la muy wax yemale kooku kooku xam boppam bari na lu baree bari loo xam ne dégg nañ ko Cheikh Abdou def ko ci ay nit ñoo xam ne dañoo bokk ci yoon wi dugg ci lu mu war a dugg mu woo rajo bi jël ay matukaayam ba e, tey lii nga xam ni tey e, sëñ Abdou Lahad lañ koy sante ndax maa ngi fàttaliku benn tabaski ñu nekk fii tabaski muy wax sëñ Abdou Abdou Abdou Khadir bi mu koy wax ni ko sëñ Abdou maa ngi lay digal saa su weer bi feeñatee mbaa ñu koy séentu suñ ko gisee mbaa gisee su ko na ko yëgle fii ci jumaa ji fu waay jëm yóbbaale ko fa nee nag rajo bi nga xam ni mooy rajo senegal nañ ko def ni rajo ba ca Mali wala ba ca Mauritanie wala ba ca Guinée loolee maanaam matukaay yi ci jëloon dafa am lu taxoon mu jël ko ndax booba weer wi dafa feeñul mu def communiqué ngir ñu wax ni sëñ ab Ahad nee na ñoom ñu nga xam dañoo tënku ci sëriñ bi gisuñu weer wi am ko ko téye yàlla am ku téye communiqué boobu bañ koo wax loola moo sababan sëñ Abdou laa jëlan li doon jël ci ay matukaay ci wàllu rajo bi euh, maanaam xam nga sànq tuddal naa la ay barab yu bari yoo xam ni defar na ko mm-hmm. eh, bokk na ci fu mel ni ko wax naa la daara kaamil ji wax naa la aynu wax naa la armeel yi wax naa la rokaat bi corniche bi diggante Mbàkke ak Touba wax naa la li mu li mu lotisi ci ay ay kër yoo xam li mu def ci ay mil ay milliards kenn xamul nu mu toll yokk jumaa ji ak war ma jëm ci am nga xam ni benn benn karo bu suñ fal defoon sax laalu ko ndax war ma loolu lépp Cheikh Abdou def ko ngir sëñ Touba li dénkaane woon mooy néegu yàlla bi mooy kàggu alxuraanul karim mooy université boo xam ne kenn dootu fi jóge di jéggaani xam-xam mooy téere boo xam ne itam euh, bépp dañ koy soxla ci wàllu lislaam euh, mu am tubaa ndax téere dafa yombul woon bari na fa sëñ Touba daan mag ñi dañ daan yónnante di abante ay téere liggéeyu sëriñ sëñ Abdou Ahad boobu mu nag nga xam defal na ko lislaam defal ko yoonu murit defal ko dëkk bi defal ko njabootu sëñ tubaa maanaam njariñ la loo xam ne ba àddinay tukki des koy jariñoo mën joxe misaal tey guy mbind dafa fedd géewu ci Touba euh, kër sëñ Baara gi mu am ci penc mi euh, la ca des bëriwul euh, tey bu fekkee ne Cheikh Abdoul Ahad deful woon kër mag moom gii Cheikh Sidi Makhtar bi nekk xalifa général des mourides kon fan la doon nekk loolu mu defal nga xam ne ba àddina tukki lu ñuy jëfandikoo la lu ñuy jariñ la loolu Cheikh Abdoul Ahad def gi mu ci liggéey kenn mënu koo xam Euh, mën naa wax marché Ocass ni mu ko tabaxaate keroog bi Senghor di ñëw ndeysaan di wàcc si Abdou Lahad mi ngi yor benn baylaat benn tergal wax xam ne yaakaar xaw a bula personnalité bi mu àndal euh, sëñ Abdou yaa ma lépp ma moom ma nga xam ni discours ba mu fa def discours bi mu def foofu ak 1972 bi ñuy inauguré forage F1 forage F1 nga xam ne 72 lañ ko lañ ko inauguré nga xam ne keroog ni màggalu Tuubaa doon mel ci mbooloo Cheikh Abdou Ahad indi na fi lu toll ni màggalu Touba ci ay nit ndax noonu la ko wootee woon ndax booba euh, forage bi nekkoon Daaru Manaan suñu Fall defoon ko fi rek moo fi nekkoon waaye f boobu moom it am discours bu am solo bu fi def ci digganteem ak Senghor xam naa danaa ci ñëw ci kanam euh, donc suñu laa def yooyu yëpp yoo xam ni luy jariñ nit ñi la ba àddinay tukki defar jikko itam li am solo mooy defar jikko ndax suñu boroom bi nga xamante ni bind na Seydina Adama ak Hawa dëkk leen aljanna ni leen na ngeen lekk fépp ba mu des garab gi bu leen ko laal ndax euh, garab googu suñ borom du leeral waaye borom xam-xam yu bari wax nañ ni euh, àjjana sobe waru faa nekk euh, comme sobe waru faa nekk te xëy na bu awa lekkee ci garab googu mën na gis baaxu jigéen te sobe du fa nekk lekk gam ci lekk nag moo tax suñ borom génn leen sànni leen àddina lu ci teg da ngeen dem foofu ngeen di liggéey seen bopp yéen fàggu seen bopp lépp fu ngeen dëkk lu ngeen lekk lu ngeen sol waaye dinaa leen yónnee loo xam ni mooy alxudaa gi ngay wax alhuda euh, mooy ak njub euh, ak te dëggu alhuda moom tax ma ci njëlbéen nga ndono sëñ Tuubaa yi mooy alxaq wal huda mooy dëgg ak njub nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad donn ci sëriñ bi mu ko donnee da koo téye lam naan xusumaate naa bi xuwa ko téye woon bil xuwa nga xam ni euh, fa imma ya'tiyannakum minnii hudan faman tabi'a hudaaya falaa xawfun alayhim wa laa hum yahzanuun kon njub googu ak dëggu gi nga xam ni moom la ku yàlla mës a yónni ku yàlla ma sa yónni loolu nga doon andi. Cheikh Sidi Makhtar digganteem ak sëñ Abdou Ahad moom itam diggante bu rafet la woon nga xam ni e, saa suñu masaa woote ay addiya yu jëm ci liggéeyu sëñ Tuubaa Cheikh woote ko donte dañ koy jaarale Daarul Xuddus Cheikh Sidi Makhtar kenn daggu ci ëppale te daan jëkk a joxe waaye fu Cheikh Abdou Ahad ma a nekk da ko daan siyaare su gëjee wut ay addiyaam moo xam ay gàtt la moo xam ay ginaar la moo xam dugub la dem yónnee ko Cheikh Abdoul Ahad ñëw siyaar si ko saa su mësee dugg Touba itam li muy jëkkee def ci Cheikh Abdoul Ahad la daan jaar siyaar ko soog a ñëw këram loolu moom moo nekk digganteem ak Cheikh Sidi Makhtar radiyallahu taala anhu eh, Cheikh Sidi maxtar nag eh, am lu mu daan wax ci Cheikh Abdoul Ahad mooy li ma la wax nii aw doxaliinam ak yorinam ni mu ko yore woon lislaam bi mu marqué woon ko loolu moo waral bi mu nekkee sëñ Touba moom lim def. mooy def ni Cheikh Abdou Lahad li mu defal Cheikhul Khadim ci dëkkam bi kenn dootu ko defal mbaa boog du gaaw sëñ Sidi Abdou Lahad mii itam am fu mu tegal Cheikh Sidi maxtar ñun xam nañ ci dara ndax néew na euh, luñ fa fekkul mën naa am du bari waaye du du mu tuddati su ma saa ñëw di ko wax si màggal gi di ko sa bis bi de ñëw na euh, ni tekk di ko déglu sëñ bi daal di teen ni ko nañ ko wéyale nañ ko daan wéyal te luñ ca mën a yokk nañ ko yokk donc sëñ Sidi itam. su masaa toog ñëw siyaar si seen bi su korité day ñëw siyaar si ko su tabaski day ñëw siyaar si ko su maalu mbàkke réunion mu ñëw siyaar si ko su ko gëjee gis ñëwit nemmeeku ko saa su nekk mi ngi yónnee ci moom itam loolu muy relation bu rafet boo xam ni dafa am diggante euh, famille Cheikh Abdoul Ahad ak famille njabootu Sëñ Tuubaa gi te Cheikh Abdoul Ahad loolu nga xam ni euh, moo amoon digganteem ak Cheikh leen Bara moo amoon digganteem ak Cheikh Moustapha Cheikh da daan wax naa sax Cheikh Moustapha mooy sama waajur moom la ci lépp ci diisoo ndax seex Moustapha danaan bi ma bi ma bi ma toogalee ku ku bi ma toogalee ku ku tedd ki damaa jiital ñaar bàyyi sama ginnaaw ñaar damaa jiital fit ak fulla der bi ak wërsëgu àddina bi ma bàyyi ko ak nit ñi Cheikh Abdou Ahad daanaka noonu la doon doxale nga xam ni wërsëgu àddina bi lu ma sa ñëw ci moom lu ma sa ñëw ci moom du fanaan ci moom mu yóg séddale ko njabaru Seexul xaddi bi moo xam xorom la moo xam ay dàll la moo xam dugub la moo xam ceeb la moo xam addiye la moo xam ay lépp lu ma sa sañu moo xam ay oto suñ masaa di jënd ay oto sax ku mel ni ñu ko dafa naan mboolem njabootu sëñ baara sëñ tubaa gi doomi sëñ ak xalifay doomi sëñ tubaa yi na jëndal ñëpp waaye mel na ma rek dama ko am di ko nu mu tuddati man maa ngi fàttaliku magasin bi nga xam ne dafa xaw a féete eh, ci kër eh, soxna moom yi eh, fi ñu daan dañ daan sotti dugub yi nga xam ne nit yi dañ daan rang ku ne ñëw saan di jël sa sa sa dund soo masaa dugg ci ci kër gi Euh, nga xam ni ñëw ñi néew doole. wala ñi nga xam ne dañ tuddee ay ay ay waylaago dañ daan toog ci kër gi ba nga xam ni da ngay jàpp ni lii ak magal moo fi xew te ñu fi daan nekk seen dara daawul manqué seen dund seen ndekki seen añ seen reer yërmaande ji mu amu ci ak ni mu daan defee kooku wax dëgg yàlla Cheikh Abdoul Ahad kenn fekk ci. da ngay xool bu ñu nee Cheikh Abdoul Ahad bi dimanche bi ñu génn àddina ñaata daayira ñoo ñëw fekk ñoo ko ñëw siyaasi Touba la man keroog ca samedi maa nga fa. sëñ Mbàkke sëñ Cheikh Mbawoor keroog ñoo fa bokk yendu kere indil nañu maanaam benn booli boo xam ni maanaam fanweeri nit mën nañ cee lekk biñ noppee indi lañu attaaya indil njara soow ba ca tàkkusaan mu génn ndeysaan ci keroog tàkkusaan gi boobu laa bu ko jëm bu ko dem France ma tàgg ko ni ko dama bëgg dem France mu mas nga faa dem man ko déedéet moom sama am dina la taxawu de sama am dina la taxawu de sama am dina la taxawu de daal di may ñaan naa la ci la wàcc liggéey bis boobu xam Eh, am na daay daayira yu ñëw daayira ngaay siyaarsi fédération ngaay siyaarsi nañu yeneen daayira siyaarsi nañu ana xaalis ba ñu fekk ci moom douze mille cinq hmm. nga xam ne ak farloom àgg na ci balaa muy génn àddina fam ne lépp daf ko ñu liggéey sëñ tubaab joxe na ko njabootu sëñ tubaab hmm. kooku dafa am lu muy lu muy jàngale hmm. lépp lu ma sa ñëw ci moom delloo ko sëñ tubaab yaakaare sëñ tubaab ñoom dafa naan su ma naan tas yaakaare sëñ tubaab yàlla naa ko daal di wute musu tas yaakaare sëñ tubaab yaakaar yaakaari murit yi tësul yaakaar yi lislaam yàlla nañ ko yàlla fayal jëmm la joo xam ni képp koo xam ni da ngaa yilife ak loo mën di yilif boo yoree aw doxinam dina yomb ci yow am na kilifa gu mag goo xam ni dafa ñëw Touba Belel eh, ngir war ma du ma tudd aw turam waaye ci yeneen kër yi la bokk ak njaboot suñ ko déggee danañ xam ni dëgg bi mu ñëwee mi ngi ànd ak ki daan dawalal waajuram ak ki koy ubbil ay néegam maanaam li ñuy wax bëkk néeg ba sëñ daal gënal leen ba ñu dem mu daal ba dugg ci oto bi daal di ne sëñ Abdoulaye li tax may wax li may wax mooy ñii laa koy seetlu kii li mooy lii ci man kii mooy lii ci man kii mooy man ñun de saye boo ñu lakk xotti suñu téere yi te bañ a tee wax alxuraanu karim dañ ko jàng ne ko waaye dégg ñu ci dara yow yaa ki ko dégg te kilifa gu mag la goo xam ne moo seereel déggu alxuraan goo xam ni Cheikh Abdoul Ahad dégg na ko alxuraanu karim loolu lépp di mbiri sëñ Touba ndax sëñ Touba xam nañ ni maanaam ni mu mel ci alxuraan moom doomu ñun tuut nañ ci melal xam-xamu Sëñ Tuubaa ci ci ci ci alxuraan waaye Cheikh Abdoul Ahad jëmm jooju nga xam ne kilifa diine gu mag la koo xam ne ak moo jiite woon kër ga mu dëkk moo ñëw ba Tuubaa beneel daal li euh, seereel loolu Cheikh Abdoul Ahad loolu nga xam ne nag dafa nekkoon boroom basira bu sori euh, bu sori nekk boroom xol bu rëy nekk boroom xel mu rafet nekk borom fit nekk jàmbaar moo waral lii lépp am te day wéy ba àddina tukki kenn mënu su fee ñëw di wax te waxoo ay waxam kenn mënutu fee ñëw di jëf te sofoo say jëf ci jëfi Cheikh Abdoul Ahad moo war a Cheikh Sidi Maxtaar bi nekk Sëñ Tuubaa bu ngeen gisee aw doxalinam ak yéppam daanaka da ko sos ci doxaliin ak ak jëfiinu Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu taala anhu ndax ci jumaa ji euh, maa moom ak yàlla wama yàlla la lay seetal li may wax bi ñuy waxtaan ci jumaa yi ci liggéey bi mu ni ma demal ma sëñ Sidi Abdou Lahad la ma wax ak moom du ma ko wax waaye moom ma demal sëñ ab Abdou waxal ma ni ko damaa bëgg a yéene àggale yéene Cheikh Abdou Lahad ndax am naa ay xibaar ni Cheikh amoon na yéene yi yokkam bi am ñaari soroor waaye liggéey bi mu liggéey ci biir kenn mënut a liggéey liggéey boo gën a dëgër ba tax na kenn du ko laal ñaari soroor yi laa ci yokk marbre bi ñu war a defaraat dafa diis ci fer bi nga xam ne ko koo taawu bay wadd di dal ci kaw euh, kii bi nga xam ne ay kilos yu bari la yooyu bu ñu ci dee loolu la ci def kon Cheikh Abdou Ahad yéene ji mu yéene woon ngir yokk ci ñaari sooroor moom ma dama leen sëñ Sidi loolu laa ko bëgg a yéene jooju laa ko bëgg a ndax am naa yaakaar dégg naa ci benn doom sëñ Abdou Ahad sëñ Murtala mu ni ma plan bi loolu amee mu ni ma man dama jaaxle Cheikh Sidi wax naa ndax sëñ Abdou Ahad defaroon na plan bi ba def ci ñaari sooroor woo suñ daam àttal lañ ma wax euh, ni ko demal ci suñu Moustapha ab sax xam naa miinoo ko waaye ngeen dem suñu Modou Awa Balla ci Louga ngeen joxal ma ko euh, plan bi nga xam ñaari solo moo ci nekkoon kon mu ni neel sëñ dama bëgg a àggale yéenay Cheikh Abdou Ahad ñoom laa koy ñoom laa koy ñoom laa koy defal donc loolu mooy li ma wax ne la sëñ Abdou Ahad li nga xam ni moo moo moo jafe ndax yonent yi nga xam sax am ñu xekk ma day xaw a jafe ñu communiquer ak ñi ngay woy communiquer loo ma di xam te amoo ma dina jafe ci yow soo waxee deew waaye loo mën di ñàkk xam itam tam yàlla jox la xikma xamal ni faxat utiye xayran kasiran sëñ Abdou Lahad nag yàlla mayoon na ko fit mayoon na ko fulla ñeme woon na amoon na xol bu rëy amoon na xel mu rafet ba pare mi ngi daan tibbe ay waxam ci lawhul mahfuz loolu la ko sëñ Touba defal moo waral ba àddinay tukki ay mbiram dafay def ku fi mën di nekk sëñ Touba tam mënoo wax mbaa nga jëf te tudd sëñ Abdou Lahad radiyallahu taala anhu ay murid lañu